na ngeen dalal seen xel bu baax sëñ bi nag mi ngi leen di soññ ci lu ko ñor muy loo xam ne sëñ tubaa sëñ Muntaxa wax na ci démb rek muy tuubaa ca kanam na ngeen lu bokk ci ñi jëmale tubaa kanam ndax kat ku ca bokkul dana jëm kanam ku ca bokk dana jëm kanam maamam njëkkat maam Cheikh Ibrahima Fall daana wax ne mbir moo xam ne boo ci jàppee mu dem boo ci jàppul mu dem nee na nga la waaye jàpp ca ca des a sag ba mu mel ni yaa koy doxal te doxaloo dara sëñ tubaay doxal lépp kon jàpp leen ci liggéey boobu liggéey bu ñor sëñ muntaxaa la tey jii ku xool réseaux sociaux yi gis nga la seenub liggéey te yemul foofu am na yeneen yoo xam ne si gisoo ko ci télé bi kon jàpp leen ca tubaa ci kanam ji bu ngeen ko defee kat dana gën gën na ba noppi dana gën a gën